je m'appelle Yafatou et je suis la maman d'une famille de grands gourmands. À l'heure du marché, ils m'ont surpris avec une ambiance incroyable. Et c'est pourquoi j'ai fait un tour chez Mertiaba, qui m'a confié 40 ans de savoir-faire culinaire qui se résume à la gamme Kadi. Dès que j'ai émietté mon bouillon Kadi dans la marmite, comme Mertiaba me l'a dit, les Ndoyen ont tout de suite apprécié. Quelle bonne odeur et quel goût qui font la joie de toute ma famille. Gamkadi, bonjour l'appétit ay salon en tissu ay salon en velours bas Ameublement nous vendons ce que nous fabriquons nous fabriquons ce que nous vendons Lampfal Business Couture KDJ Style Umusana Fashion Kony Style Jaria Création Reflet d'ébène Mbake Kadior Couture Cœur Salio, Salio, Kala Shop Maktoum waa Babakarsi Baba Karsi Couture Mina Couture Gay. bu mu sëy ci lañu jàpp maak yow fasi ko lëre ci kenn ku ak li mu boole àndal ñuy dee doon ko waxtan di ko jiitu waaye jëmm jii toog ponkalum baadoola la ah kay ah legi da nga tekki ba tax nga tekki weer man ma la gënoon tekki ci ay weer tekki tëj ni yow baadoola nga ah kii kon moo ko mu dem ba kër ga dafay wax waxi mariage do taggo yow lan la fi won ba nga yegle mariage eh ya nga bëgg ëppal nak wa man deug rek li la wax. wa man plan bi rek la doon top te jigen soko bëgg dugg te. dam bi nu ma ko xoole neexul bët moo tax ma lal sama plan li may waxatee ngi nii kon moo la lalloo ay feem Matas ça suffit nag bàyyi jàmm bi waay waay bàyyi mu waay nga ne ma fi nga ko jàpp neex na yow téel ci plan mariage bi rek gëmloo ko ne xoola danga koy takk daf loo ko eh xam nga lu mu doon kii foog nga fàttali ko lu démbam kii café Touba lañ ko fekk muy jaay gu bon balaa nuy balaa mooy fay dem dafa wa def kii que ce soit nanu tàggu nun fu nu ndigal yenn day nuroo iñaan de yëkku la iñaane mambo bon yow e eh, modéré sa langage hein ah? eh, i xoolal lii xool yëfi mbaadoole yii xoolal naanu mbaadoole gii muy naane yow seer nga rek yow lii nii nanga koy naane wuy ma yow dama ko wool matin midi soir gëmloo ko ne danga koy takk est yaa ngi may dégg eh,

Fadel kër gi yaa fi kilifa. Géré ni. sa kër gi dina tas de. je gère maa def lu mu mën. Li moy def li nga mën. je fais de mon mieux. ok mais tu t'imagines tu sais ça tombe bien xam la lan bëgg nga jëlal ma Fatima si ruux rek tegal mako ay science wax ak mom s'il te plaît. man mi man sama yoon dafa nekkul sa diggante ak Fatima gis nga yow ak sa diggante ak sa jabar yi. Ah. gérer ko sa bop. Ah Fatima man sama bopp dama génn ci ay mbiram raxas yu ba set wecc wecc wecc dëgër bopp la def nit mënu ko wax lu mu dégg. ah. <laughs> ta maison tes problèmes. très bien ma maison mes problèmes. oui. Mhm. yow nak quand même jox la ka info à chaud là tu vas avoir lu la doy mbubb pantalon ak chemise ta mère recoule avec un certain monsieur Malik mais yo, de quoi tu parles eu quand ça m'a suñu yaay. sa jour. mais Fadel mais mais je rêve ou quoi mais tu parles de quel Malik ak Malik pour fan le jógee. bah écoute euh, c'est un monsieur que tonton Matas a amené. et eh, ça ne m'étonne même pas hein. hmm. ça ne m'étonne même pas. mais le gars bi ma jongalee xale yi euh, xarafal tu vois mon aide fait une kër une ñaanalal pour gaz bi watch il a fait du xa feu feu feu feu feu embarquant ta mère euh, dedans donc projet de mariage à l'horizon encore fangaas hein, man ma tasse, ma tasse, en fait ça ne m'étonne même pas ça ne m'étonne même pas lui il est dans toutes les sauces Fadel ñu ngi doog am problème là. tu je viens là tu me parles de Malik, je sais pas d'où il sort tu l'appelles mu ñeu fi ñu gérer problème bi je sais pas son numéro c'est Matas, non Tu te débrouilles comme tu veux. Appelle Matas. Tu l'appelles. Ok. Nous nous problème. y ngi sonné Nous nga ne fi di Nous rek. Matas. oui man Fadel. <laughs>

yaa ngi soog a am beneen mission. mais papa. Hmm. ambiance bu def ci kër gi ko continué ku ñu ko wér nañ loolu nga gis mais petit xanaa man tapare bi ñu doon def dafa neex waa kër gi di nemmeeku maa booy di jox ay orange ak ay jus loolu dafa neex ñun sax ñun yàlla bu ñu wér. papa comment ça ne bu ñu de duñu mën a def am ya temps duñ ko mën kon niñ tëddee nii est ce que doo jàpp temps ma jàpp temps ubra jekki je kit gën ubra jekki je kit gën je kit gën je kit gën ubra xanaa xamoo ne lu neex a ngi noonu te yàgg hmm. salaamaaleykum yéen foutez de ah salaamaaleykum ngeen war ma fay ngeen naan dangeen di jooy ah et dañ leen xarafal <laughs> ok yéen kam ma leen xarafal yow war na leen xarafal te man seen baay duma ko yëg ah yéen man may seen papa lépp li ñu war a def man dama ko war a yëg. du ñu nga koy laaj. <laughs> xalisa eh, fii dara xew ah, tout est poste xale nga ma may waxta may waxtaan ak ñoom vraiment gis naa ni nga def. petit papa kontaan naa bëgg jus. jus. mais papa tu m'as la wax nag de mais li moom trop. man dama seen morom ah. voilà xarafal rek mu tax ngeen yap ma de nga wax li meen wax wala xol leen ni ngeen wax ak man duma sen morom. père wala loy mer ñu lu la def ji nga sama yaay biñ ko ne la ngay waji am dom ba leg les mains sont tendues sont tendues sama yaay gis nga ku ñu fi diko jema def yi da lay tek ci axe. oh oh, oh, oh. ngan la kan moy waji am dom ah suriya

Will you put it on? Malik yàlla bu baax ah man kay j'espère que tu as bien dormi boole ma sa conjugation yi may sa rim yi ngay rim nga boole ma ci jàngal ma rim yi ah ah macha allah sënt yàlla bu wër kontaan naa nag maa ngi nii dama doon julli léegi ci sisaada bi nga ma offrir kado bi laa gën a kontaan nag kado bu jóge ba màkk loolu xam nga ne bëggee ak cofeer rek la jërëjëf ah merci beaucoup beaucoup kontaan naa <laughs> saf moo tax damay ree ba kekku <laughs> allah kubar gaa gaa <laughs> mm, mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. ii ii non dinaa la xaar kon ah, waa baax na maa ngi lay xaar bu baax avec plaisir

may wax muy rukk rek ce vieux Malick yow du xam nga jikko pati dafa ëppal lu ne muñ ko mu ko doon wax mbaa du yow waxu xale yi moo tax li ma dégg xam naa la la loo dégg ay mbëggeel indu laa fi gis ak ay projet mbaa du seen conversation nga déglu nii yow benn bi nga dégg conversation mën nga si tiré benn solution waaw mais ñaari xarit yuy waxtaan la maa dégg loolu bu baax a baax a baax a baax nekkal nit nag doo xale magum jëmm nga yaa ngi bokk sa ñaari jéego pare defi looy fiir mais ma noppal ko man moom eh ah. defaral tisane ndax nga mën a xëy dem liggéeyi liggéeyam je bouge pas dans rek la sa point nag fi gis fi jaloux yow yaa ngi dee waa mamboy bu jongoma wee sa yaay bu jongoma wee tam ñu wax ko mu. ko jongoma wu mamboy

waye nak gis na la danga ma diw beur bi nak tay ni nambat mhm. waye digeunte ñaari xal mhm. di diwante beur bi laay waxtaan ak yow dama la bëgg jappalé tablette nan ta nga defar sa wi ku yéex a ngay doon lu tax non yow so tekki ma ngi gis ni mu ngi ram yow ku yéex a tekki nga nga soxor man hmm. j'ai une très belle voix ma sha allah soo mënut apprécier nga ñëpp s'il te plaît waaw mu loolu jaay do nga ñama pour lan jamur lay demal doo xaar li ñuy di xaar. waaye man bopp maa ngi ñëwal ma rek. mu ko wax waaw tay di ma wéttale ci waañ bi ñëw. Njaay la nga supp. noo ma gisee. Njaay sa supp bi si kiya kiya ñàkk nga jom kiya xanaa hadu yow la sa yaay doon tëggal biir si barke dembu fi pour affaire góor dafa am ñett yu nit wara a taamu nag te nekkul ci yow jom ful la fayda amo ci dara dama la yërëm xasuma ma dag ma tagg Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. ya. Wa, mami Zara ça va euh Kia, naam je peux te parler laajuma la kiya je peux te parler oui ou non man awma oto bariwuma xaalis waaye am naa dignité am naa dignité euh, Kia dama la bëggoon wax ñu jël histoire bi teg ko ne la parce que ni ñu may tàngee ci kër gi neexuma dara ñuy robante par duñu wax rafetul sax bal je vais réfléchir eh, Kia xam nga lu mu doon yow xamoo ko la neexal de Kiai, yow mun fi ma taxaw sama yaram baa daw sama karaw yaram yep ubbe ko bu fi ngelaw aw man rek dana ko landeer xale bi lu mu wax dawul sa yaram yow ñett yi mi ngi ci yow de for nga kan nga danga dis nga ni taabu pokataan yow mayal ki jam ngeen bo mu jeex ngeen jall ci lenen ya lu sa yoon ya lu sa yoon ya lu sa yoon ak sa gataay mel ni de fleur man ngay dépasser ni de mba xam nga ne am naa fit bu toll ni dóor la ba ngay bëgg a dee ubbi fenn ci waañ bi bës la fa ma wàcc ñu laaj ma ma ne gisuma la. ma xaar la fa ci beneen waaye rek. waaw yabaate. kii yaa tontu ma. je vais y réfléchir. ndeysaan. kii est-ce que wér na. kii wéru boo ko xoolee ni mu ndawee nii nga xam ne wéru. yow kese. yow jaareew lan la. mais aw ma droit toog fii. waaw non am na yoo xam ne kenn du ko laaj quoi. gis nga man fi ma toll nii taluma sax ay problème dama la gis nga sa ngëm rek may laaj lu xew. jaare excuse moi xool toogal toogal. sama bopp bi mu ba pare dafa am ben nouvelle bo xamni dama koy yëg mm. attanu ma ko mu waral suma tanki paralysé massa man de actuellement da mel ñoo bok problème <laughs> man mom dama sax jom bi mais xam nga nek nekk kilifa toujours nga jànkuwante ay problème àdduna la kenn xamul lan la saa boo xëyee ak problème yi ngay jàkkaar lool loolu moom kër gi sax moo ci rawati fii nga xam ne saay soo xëyee ak problème bu bees amee mais bon c'est la vie hein ku baax nga si jaarew da nga baax ku ma daboon ne ma amuloo jëkkër duma ko gëm ah de maa gën a jombi ku ma waxoon naa am jëkkër duma mais jaare gis nga ni nga mel macha allah taaru ni nga jekkee

waaw yow Matas. Hmm? bi ben, ma lay woon dama la ne woon nga ma ton vieux là en bleu là. le Kodou feu feu je sais plus quoi. quoi. yow da nga maa gis ma jaar ay prison bi la. feu feu feu feu feu, mooy la mel ni ko yore la. eh man duma sa morom de respecte ma laa wax. ki nga àndaloon. eh vieux kun ngay wax. voilà ah doo ma wax ko. woo nga ma téléphone. ma ne ko incha allahu rabi na nga ñëw ci kër gi bu fa la dalaa soxla. ba muy ñëw ci kër gi woo naa

Yes. S'il te plaît, tu qui gagne là. الو waaw sama xarit naa def waaw egsi naa maa ngi nii ci biir ñëwal dafa am lu lay indaaleel yow eh kii sama yaay lay waxal s'il te plaît jaa yu toog sama xarit

mbëggeel beltina ndeysaan kaay ñu bëggante ah, sama xol may maa ngi siin pur mbëggeel eh ngi mbëggeel dëgg ngi nii est-ce que xam nga ne lu jóge ci xol loo gis ci xol lay dellu mm-hmm. mbaa xam nga ne lu jóge ci xef bokkul ak lu jóge ci xol daf maa delloo à l'époque lan ñu fu ma jëm mbëggeel ci boppam dafa metti bu guddi gi neen selaw lu fay xew xale bi la yow astafirullah mère bi la yow yooyu yaa koy tere yaay koy tere nelaw su guddi gi neen selaw matas ah. mbaay fii xewe fii la xewe di Wawai bulka jala wawai mana bu Iya, iya boy danga joy Wah sama ya migi joy diye Wa ya danga joy Madas. <laughs> Eh gis nga mbëggeel dafa fort ah dafa am doole ay sentiment la mbëggeel dafa neex ay jooy rek la gis nga Gak gaaw gak gaaw bëgg bi mu gaaw bëgg ak xolam bu oyof bi ah maa ngi soo comprendre fi mu ko jëlee. c'est le sang qui parle. ndono là ah mbëgg la 60 ans. Ni lay mel. <laughs> yaay félicitations je suis trop contente pour toi yàlla na la jik waay. macha allah macha allah. c'est ça. Je vous souhaite une gastro à vie plus un jour. Merci ma fille chérie.